façon extérieur bi am di ko dentaire aérole bi yaa ngi koy gis yaa ngi gis obstétrique bi yaa ngi gis gynécologie yaa ngi gis li nga xam ne pédiatrie bi yaa ngi gis gérontologie pharmacie bi service tech laboratoire banque de sang radiologie orthopédie oncologie appel urgence post opératoire stérilisation les jeunes et en demi loolu lépp nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ku si amul lu nag sooxe sa yaram rek wala ñu siy kii tuuti rek incha allah boo duggee fii ba xool parce que ñi nga xamante ni ñëpp ku nekk sa xel day dal waaye ñun bërëb bi ni mu rafet ak ni mu taaroo boo fi duggee itam yàlla mën na def sax loo doon léegi sax lu bëree bëri mën na si wàññi bërëb bu ko taay ko ko wax sax allo allo allo yow jàmm laaj sax Come here. 战争。大国。必须 approve。

ginnaaw bu ñu sant yàlla julli benn sëñ Tuubaa lii kenn du ko gis hôpital boo xam ne macha allah bi Tuubaa am léegi kenn du fi jële yóbbu fenn moom la Macky Sall def ci ci ci def wër nañu ko nag man gisuma fi teg liñ fi gis lépp teg lii moom sant yàlla rek ndax sëñ Tuubaa rek a mën am lii nag hôpital boo xam ne kenn dootuñu ko fi jële jëme fenn moom la fi def yàlla yàlla doon lan ngay wax ñi nga xam ne dañuy naan hôpital bi parewul te waaye de wedd gis bokku ci man maa ngi ne ci biir hôpital wër naa ko ba daj gisuma fu egg fu ñu fiy liggéeyee pare loolu koy wax la rek Nous avons un service d'urgence dédié avec un accès dédié. Dans l'hôpital, nous avons trois accès. l'accès pour les tout venants à l'entrée, l'accès dédié aux urgences, mais également un autre accès qui est dédié à la logistique pour amener les, les, la, euh, les, la, cuisine, les médicaments. Vous pouvez le faire sans en tout cas faire des croisements entre les, entre les, euh, accès. Là, nous sommes au niveau des urgences. a Là, nous sommes à la partie administrative. Euh, les détentes, xam ne toutes les parties sont dañ ko diviser bu ne am rôle am sànq fi ñu romb ne mooy partie administration yi fi ñu préparé fii ñu def hospitalisation boo xam ne peut-être pour benn da ngay yendu ba ngoon jot nga ñibbi fi lay xool ñu surveiller la mhm. wala nga fanaan ba suba ñu yóbbu la donc la deuxième la troisième partie nañu jël en tout cas jël ko sol ko bu baax a baax et rapidement donc euh, salle de déchocage la tudd équipé également avec tous les équipements que nous avons échographie parce que bu ñëwee mën nga ko mën defal échographie léegi si lal bi gis nañu rajo mobile tout à l'heure à côté rajo boobu aussi dañuy def rajo mobile si urgence bi pour mën a rajo bi moo xam ne mooy fekk malade bi si kaw lal mën nga ñam urgence damm-damm léegi ñu bëgg la xool au lieu la yorobu rajo ñooy rajo boobu fii mu xool la si lal Mais dans la région, c'est la région. Il y a 30 minutes. Donc là, nous sommes au niveau de deux services. Nous sommes au niveau du service d'orthopédie. Uh, pour la rééducation, pour le matin, il faut visiter même la salle de rééducation fonctionnelle de service pour le cancer, donc c'est important. benn service boo xam ne mën nañu wax ne moo njëkk si région yi service de radiothérapie à part Dakar. région Diourbel moo ko fi am ville de Touba moo ko fi am muy service de radiothérapie service buy traité cancer globalement cancer ñetti technique de traitement la radiothérapie la chimiothérapie la wala chirurgie fii si Touba si service bi ñu nekk nii mën nañ ko fi def mën nañ fi def radiothérapie ak accélérateur de particule bi mooy ñetteel bi bi ñu am Sénégal mën nañ fi def chimiothérapie mën nañ fi def également chirurgie par rapport à ça donc dañ dem gis service de radiothérapie bi ñu fi installé par wax naa leen sànq. ne hôpital bi ñetti scanner a fi nekk. am solo la également benn scanner bi ñetti scanner. mais scanner bi dafa am rôle bu mu am si si cancer. malade bi balaa ñu yóbbu si accident de partenaire fii la ñuy essayer simulation. ni defee traitement nan la ñuy protéger yi nga xam ne dañoo feebar ak ñu feebarul. dose bi ñu war a ko dox parce que dañu war a dugal si yaram ay tooke yoo xam ne mooy dem rey en tout cas cancer bi fii la ñuy def simulation fii la ñuy def daal essayage bi muul yëpp ba mu baax ñu jël malade bi na door ko yóbbu si rajo accélérateur de particules donc ensemble la mais bi mooy première étape bi ñuy def balaa ngay dugg si machine bu xarawe ba ñu gis fële en tout cas pour pouvoir amener maintenant le donc wax naa leen sànq ne malade bi war a def radiothérapie fee lañ koy njëkk a jëlee si scanner foofu lañ koy préparer foofu la ñuy calculer dose bi foofu la ñuy xoolee nan la ñuy protéger organes yi nga xam ne dañoo feebar ak ñoo xam ne feebaruñ kenn waru leen laal bu ñu leen préparer ba pare ñu boor ko dugal fi ñuy wax accélérateur de particules salle bii la salle bu am solo la salle bu jafee defar la bu laal bunt bi déjà sa porte la bokk la porte benn porte porte bi une cinq cent lay posé une cinq cent parce que day am lu ñu war a protéger donc c'est pas une porte simple mur yi également bu ñu ko xoolee léegi mur yi presque mur bi épaisseur boo gis deux mètres entre un mètre cinq cent et deux mètres mooy service bi gën a jàppe defal si hôpital bi donc gis ngeen épaisseur bi donc gis ngeen épaisseur mur yi presque ay deux mètres la parce que dafa am tooke buy jëlee te bëggul dafa dangereux dañoo war a protéger malade yi mais également dañoo war a protéger nit ci gannaaw nga xam ne ñooy manipuler équipement yi loolu nag mbir mi mën toll nii rek nga mën a def te rayon li ñuy wax rayon x duñ jàll fekk ñee si biti donc li mooy accélérateur de particule bi ñu koy installé li ngeen gis ni def nañu installation mécanique radiothérapie benn gis nañu xaalis yow. li mooy dispositif bi joxe yeneen toog yooyu mën wax ay bras bi bii bras la benn bras boo ne day tourné position boo bëgg de particules je disais tout à l'heure c'est une construction particulière spécifique. de pédiatrie globalement et là nous sommes à la partie néonatologie nous avons deux salles de néonat là avec les en les couveuses on en a plus de huit six couveuses dans cette salle qui permettent en tout cas de prendre les malades, les nouveau-nés qui naissent en tout cas, les prématurés. Donc c'est un équipement complet. Également avec tous les dispositifs d'oxygène, nous avons Nous avons. donc ki expliqué dinañu expliqué mais ñu ngi fii néonatologie comme ni ngeen ko gisee fi nga xamante ni moom la ñuy jëlee euh, euh, bébé yu juddu tam ay jafe-jafe euh, donc faible poids de naissance wala juddu ak yenn jafe-jafe yi donc rapidement en urgence ñuy soxla kon ñu ñëw taxawu leen di soxla tamit matériel bu spécifique loolu moo tax xëy na Touba tey jii ñu indi fi li nga xamante ni moom mooy service de néonatologie pour wàllu santé mère enfant ñu def ci ay jéego yu am solo parce que Touba day dëkk bu màgg euh, war a liir war a juddu am jafe-jafe nga def ci ambulance rawale di def ay oxygène yooyu yëpp mën naa yokkutoo taux de mortalité bi bu dee nag loo xamante ni jege nañu tey jii euh, dafay tax prise en charge bi gën a gaaw loolu di ànd ak ay pédiatre yoo xamante ni ñoom ñoo fi nekk mais it ñoo xamante ni seen xam-xam dafay màcc ci wàllu faj liir muy ñi nga xamante ni ñoom ñooy spécialiste ci wàllu néonatologie ñoo ñëpp dinañ ñëw kon gunge l'hôpital bi euh, mu di kon euh, gis ngeen ko nga xamante ni dinañ mën a dugal bébé yi nga xamante ne xëy na ñoom ñoo gën a euh, ci wàllu wér-gu-yaram xaw a sane waaye ñu gën a compliqué ay table chauffante mi ngi nii seen ginnaaw kon jéem dinañoo indi ci ay leeral voilà donc quelques informations par rapport au service de néonatologie du nouvel hôpital ok Béthio Pro moo àndoon ak yéen yi ci visite bi nga xam ne bii tey ci inauguration hôpital Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul te président Macky Sall war koo euh, ci ak ndigalu xalifa général kul murit te gis ngeen nag euh, mbooleel service yi nga xam ne ci bëri dugg na ci ak ki nga xam ne moom mooy li directeur euh, maître d'œuvre bi nga xam ne moom la ñu àndoon ci maanaam explication yi service par service. xam na ni dana gën a yaatu tamit ci yeneen yi nga xam ne moom mooy am ku ci kanamee allah ak teewaayu. Euh, ki nga xam moom mooy président Macky Sall mbokk yi loolu moom la nga xam ne moom mooy hôpital bu yees bi toll na ci euh, lu toll ci 34 euh, am li nga xam moom mooy juróomi téeméeri lal yoo xam ne nii mu ngi hôpital bi loolu yëpp nag ngir waa Touba xam ne maanaam am nañu hôpital de niveau 3 kon mbokk yi jër ngeen jëf ci seetaan bi ci yeneen jotaay ak 28 pro.